fexe ba ñu formaliser wu ci wàllu registre de commerce ci wàllu NINEA ci wàllu import export ci wàllu carte commerçant et ci wàllu sax euh, formation d'une société yooyu yëpp boo ko booleek nag taxawu leen ci dans la phase pratique nga xam ne da nga leen fexe ba ñoom ñu mën a defaral seen boppu savon mën a defaral seen bopp savon liquide mën a defaral seen bopp eau de javel mën a def ay transformation yu jëm ci produits alimentaires yi loole daa mel ni yow yaa ngi wuutu sax état ci loo xam ni état moo fa waroon a taxaw defal ko boppam. ñi nga xam ni tey seppi nañ leen jox leen seen i lijaasa ñu ngi toll ci téeméer ak ñaar fukk téeméer ak ñaar fukk muy cent vingt. ndax accompagnement dañ koy continuer ak ñoom ñun fa ñu leen jëlee moo sori fa ñu ñëw ak ñoom fa ñu tollook ñoom li war ci ñun mooy ànd ak ñoom puus rek dem ànd ak ñoom ba fa ñu jëm kon ab àndandoo la. accompagnement la cheminement la ensemble donc yaakaar ni les femmes li ñu gën a soxla mooy information li ci topp mooy formation li ci topp aussi c'est financement financement aussi par tous les moyens ñu ngi koy rechercher def nañu ko mais daañ ko continuer defaat gën leen dooleel ndax koo formé ba noppi bu amee xam-xam it soxla na doole lii ñuy def nii dafa bokk ci petite et moyenne entreprise dafa bokk ci petite et moyenne industrie te loolu lépp fànn la boo xam ne état moo koy gérer rappelé naa sànq ni lii ñuy def nii état la war kon buñ koy defal état tam état dañ koy defal plaidoyer bi ñuy def mooy nañu dëpp doole moom it na fexe ba famille yi nii mu fexe ba ñun ñii mu wooñu ba ñu ñëw mu ne ñu ah comme yaa ngi def lii kon nag nun tam noo dugal lii muy suñ participation parce que état ñëpp la fi nekkal état wu ñëpp la